dossier yi dellu si fekk ko fa Medina d'accord booba ñeenti goxa fa amoon bani omrin bani salim bani bayaadata bani hëddi borom bay wax la mu toog su toogee tëye jóg ne ko ndax Ibou Sakho dafa toogam dafa xaw jamono ba mu koy jox tontu su fekkee gestuwul sëggul dafa teg ñaari nag yi bëtam ci man ne mu ngi taxaw foofa sañ naa wax ne xat xaama kooku rek foofu la xat mën a tàbbi ci lu wér wér mu ngi taxaw boo koy xatuk tànqiix xatuk taxliil nag mooy lu am te néew am nga ne xat yoo judul baqiilu baqiilu ko firi xat yoo judu xat yoo judu néew na bu mayee al baqiilu ko awaar ko awaar néew na mu maye xër yuusutu aljawaadu xata tax ci bari na bu mayee ku tabe néew na bu mayee ku nay bari na bu mayee ku tabe ku tabe joojoo tax xat ji firi bari ku nay këlee tax xat ji firi néew xatuk taqrib nag mooy luy paree am te amagul mooy xatuk li xaamkat ba kanoon allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hëyya ala salaati hëyya ala alfalaaxi ne jàppkat yi xar xaamati salaati ñu ngay jege ña taxawal ki doon jàpp gaawtu tàbbi si mooy xat guy firi jege ñel yàlla wax ne maa teral doom aadama dafa yaade teraanga joojoo tax ma teg ko loxo wala xat karam naa bànnee aadama fooy añi ca saal ba soo soxlaa tuur ndox dem ca duus ba fa fas di añe fa muy tuure ndox fu nag di añe fa muy tuure ndox walla xat karam naa bani adam fooy fanaan ca cabinet ba fooy waxtaane ca saal ba wala xat karam naa bani aadam ñi si des tout fa ñuy fanaan fa la ñuy waxtaane wala xat karam naa bani aadam looy lekke loxo boo noppee raxasu fomp ñi ci des ñëpp gémmiñ la ñuy xaañ wala xat karam naa bani aadam boo bëggee jabar bàyyi sëb jigéen takki jigéeni jàmbur ñi si des ñépp lu ñu jot ban wala xat karam naa bani aadama su toog jotee nga toog su taxaw jotee nga taxaw bu tëdd jotee nga tëdd kay waaw xayra yal na la yàlla wuutal lu ko gën bi jaayi rasulillahi man ci samay loxoy bopp sa lu jëm ci bi yàgg naa tabi imaamu Malik mi ñu ne ci ngiram invitation la ñu def bu toll ni bii mbaa bu ko sut ñu servi kuddu servi paaka boole ci fourchette baax si ci moom mu boole yette yi delloo ko ki ko doon jox ne ko wala xada karam naa bani aadam xanaa déggul alquran yàlla ne teral naa doomu aadama lu may doyee kuddu lu may doole fourchette lu may doyee paaka wala xada karam naa bani aadam baaraam yi tas fourchette la tënk lii fattat kuddu la wewi paaka la def nii wala xada karam naa bani adam waaw wallaay jàgg ni ah, ah wewi paaka la de ma teraanga boobu yàlla binde doomu aadama préparé ko noonu mu judd su négligé ba mu jural ko torox àllaaxira perdal jëmm ji perdal xel mi ba ñu soppi ko martabu àllaaxira moo waral su ma naaw asfala saafili yéen nga Abdourahman benn jullit benn jullit benn xalaatu jullit mu ngay wecci malaayika benn doom aadama bu yéefar mbaam a ko gën mbaam xuux ndax préparation bi ñuy defal doom aadama door ko indi ci tapla bi su sàgganee sàggan ba mal départ ba mujjee safara mbaama ko gën waaw seetal li ma la wax rek xam-xàmmee te xel xam nga luy istiqlaal indépendance xam nga purem pire mooy sañ a sañ a jariñoo loo moom sañ a jariñoo loo moom sañ dogalal sa bopp mooy indépendance kon jëmm ji sunu jëmm ñun ñëpp ku ci ne yàgg nga ci àddina trop te dib jaam parce que nit yàgg naa ke loxoom trop te mënu koo jëriñ am déet yàgg naa ke tànkam te jëriñ ñëwu ci bët yéeki gis lu yàgg te xamul li muy gis làmmiñ mën a bàcce waxta noppa di ay yëf di ci dugg yi génn mënu koo ràññi xam nga lu waral lool moo di xel miy de booy door a juddu dafa mel ni tóontóor lu tojagul ni lay façon ne lay façon booy màgg di am weer muy def tàcc ci côté tàcc ci côté ngay màgg muy toj ngay màgg muy toj buy tojee nag commencé ubbeeku ndànk-ndànk léegi indépendance am parce que sanga baa ngi jóg mu ngi giide si ci la bët di commencé gis lu lu weex ak lu ñuul ci ràññee muy toj nag ba bu yaay muusoo nga ree xam ne kii ku muucu la muy toj ba boo déggee sa baatu yaay xamee ko jooy muy toj ba tànk ñett ñetti muy toj ba loxo ba ma xëcc muy toj ba bët xàmmee li muy gis bañ sax mën a yëy jëmma jooju di xool te bokk ci cër yi and àndandoog ñoom départ andoo te bi mu la ta wax dara doxul mooy rasulullah mooy aynu rahmati rabbaniyati mooy yàqutatil mutaatiqatil haayitati bi markazil fumi jaay budul woon ak moom dara du am ñaari yëf ñaari nit du dem àjjana doo ma laaj kan ak ku amul xel du tabbi àjjana ne ma kan ku amul ngor du ca dem doo ma laaj lu tax ku am xel mooy dàkku lu ak seegul ku am ngor mooy fay lu paase waxuma dëgg dama ne ku amul ngor du dem àjjana ku amul xel du dem àjjana ma ne nga ne laaj ma lu tax nga ne lu tax ma ne ku amul xel du dàkku lu ñëwagul du ko gëm lu ak seegul du ko waajal ku amul xel du waajal lu ak see gul laa wax ku amul ngor du fay taraanga ju paas ñaar yi may lay bëgg a wax yu am importance la ngeen déglu ko ñu door a dugg ci jàng yi dama ne borom xelay dàkku lu ak seegul am déet lu ak seegul ma ne leeru jantab tàkkusaan ku mu nax ba ñu ñuy jënd pétrole nga tudd leen dof daa ma sa fanaan ci lëndëm ku amul xel du waajal lu ak seegul du ko gëm ma ne leeraayu jantub tàkkusaan bi ku mu nax ba ñuy jëndi pétrole nga tudda leen dof daa waaye kat ku sonn yii ñaara la sonn tëkkub toroxte boo gëm këla ko tëkku te nga dus gor su bañ toroxte mbaa digéb teraanga boo gëmal këla ko dig te nga di gor soo xam ne waxula ci toroxte dara ku sonn ku mu doon yaar yoola la sonnal tëkkub toroxte tëkkub toroxte bu nar a gàcce boo xam ne këla ko tëkku wóolu nga ne mënal na la ko sañal la ko mbaa digeb teraanga boo xam ne këla ko dig wóor nee am na ko mën na ko ku sonn la loola xam nga ne xam nga ne wujuhun yawma sin nadiratun ila rabbiha nadir xam nga ne ku gëm wax boobu gëm ki ka wax mu tek ci wujuhun yawma sin basiratun tazunnu an yaf'ala biha a ku gëm wax boobu gëm ko ko wax xam nga ne dootoo am jàmm ju tal gor su sonn su ne laa ne la ko sonnal digéb toroxte boo xam ne këla ko dig mën na ko sañ ko tëkku laa wax tëkkub boo xam ne këla ko mën na ko sañ na ko mbaa digéb teraanga boo xam ne këla ko dig mën na ko antan na ko am ko ku sonn ku ne looloo la tax sonn boo gëstoo law jur coono ba la ko waral tëkkub toroxte la bu jëm barab tey ànd ak seede mu gëstu ko ko ko tëkku yëg ca kooka ak mën-mën ak sañ-sañ gu war dal ci kawam muy sonn nag pour lu ko musal ca toroxte loola gor goo gis muy sonn gu nekk lool la wala boog digéb teraanga bu jëm barab mu gëstu ko ko digee fekk mu di lu mu mën antan ka mu yëngu ngir loolu yooyu ñaar rekk a tax ku yëngu-yëngu ma ne xam nga ne wujuhun yawma sin naadiratun ila rabbiha naadir yàlla ñu ci yàlla boole ñu sës ci rakk rëkk rëkk aaya doxu fi sumun doxu fi ruman doxu fi araf doxu fi baat doxu fi ndax mu teer rek ñu ne wu jowul yow may si nit baasiratun tuzunnu tuzunnu baax na tuzunnu baax na an yuxal bi afaaqir yooyu ñaar yu zoo ràpp lu nekk di lii kon kenn ku nekk ñu dàqale jëmele ca amula pexe mu la dëppaloo amula doole ju la teggiloo nar faa juuxi moo tax laa ne ku am xel ku yëngu ku ne yooyu ñaar a tax di yëngu kon mim pexe ñaawul dëngul boo gisee yàlla topp doomu aadama yàlla xal lu dul doomu aadama du dara lu xel xel mi rekk tax ku mu duma xel a tax ku mu tëral xel a tax ba mu ko bindee ba mu noppi te bànneex la jëkk binda ba mu pare daf ko ne kaay bànneex jox ko ginnaaw di dem mu ne ko kaay bànneex fetal di dem mu seetlu ko fekk ko ca dem nga ne ko demal bànneex ne jasut wëlbatiku mu ne ko demal mu waaxu jëm si ci moom sun borom na bànneex demal mu waaxu jëm si ci moom mu ne ko toogal mu taxaw mu ne bànneex toogal mu taxaw ba mu yàgg mu wëlbati ko ne ko continuer taxaw mu toog mu ne ko continuer taxaw mu toog mu ne bànneex maay kan mu ne ko yaay yow mu ne ko yaay kan mu ne ko maay man ni borom bi uuteeg mbindeef yi ak ni ñu amee différence su bànneex naree yemale boppam ak boromam laaj na liggéey yàlla binda xel binda binda binda xiif binda safara binda mbugal dugal ca bànneex bugal ko téeméeri at génnee ko na ko dama ne maay kan mu ne ko yaay yow mu ne ko yaay kan mu ne ko maay man mu digal ko dem mu dikk mu digal ko dikk mu dem mu bind nag lu ñuy wax xiif sànni ko ca fukki at rek la ci am mu génnee ko na ko maay kar mu ne ko yaay borom bi mu ne ko yaay kar mu ne maay bu doyati mu ne maa ngi signalé ne ku ci sa bakkan diri ëllëg jëme la fu la neexul yet wi koy tourneel mooy yetu xiifloo ko gisuloo bu weeru koore bàkkaar niiw lu xel di dem ñaar rek day fekk koll bi dam waaye bu rësee rek ñaare wëlbati ba kenn dal di yomb mu door a bind xel nag ne ko kaay xel daw ñëw mu ne ko demal mu jox ko gannaaw bi dem mu ne ko dëjul mu toog mu ne ko taxawal mu taxaw mu ne koy maay kan mu ne ko yaay buur bu tedd bi mu ne ko yaay kan mu ne ko maay jaam bu néew doole bi suñ borom teg ko loxo ne ko giñ naa ci sama màgg ne ku ma teral ëllëg yaa tax ku ma duma ëllëg yaa tax ci yow laay fayee ku ma fay ci yow laay toroxale ku ma toroxal rasoolulaay ne na bi yëf yépp pare te kenn ñëwagul maa fi jëkk may nañ ma distance bu yaatu it ba vérifié naa yépp lu dëpp wëlbati naa la lu traversé ma taxawan la lu toog ma yëkkati la lu taxawoon ma dëj la ba gis lépp lépp waaye fekk naa mboolem yëf yi ginnaaw bi yàlla jëlee yi mu ci yi mu ci soxlaa bi mu séddoo ba noppi yi ci des pour nit ñi wirife naa leen tuuxel gën ci afdalu ma xusima al insaanu al aqal xam nga ni ko arab tudde xam nga lu lu na arab tudde xel frein moo laa moo bi doo dugg ci luy jur toroxte mbaa gàcce soo ko amul rek soo amul xel rek oto bu amul bu amul frein daanu ci kàmbak dal ci kaw taax ak fóoroxoog nit dalay dal di yomb xel ci la yàllay fee ci lay duma moo tax doomu aadama wëlëre su la ko joxee nag nga ne ñu mag moom jariñoo woo ci dara amul lu mu la mën a niital lu ak seegul nga turwee ko mu agsi di noona amul lu mu la mën a xëccal lu dànd mu accident noona kon soxlawulaa jox dafa wëloore taab ku ko yàlla jox ku mu doon dina la contrôler foog mu wéet ak yow contrôler foo ko sànq ak noo ko sànq wamastawala idrak yonen di keli qulaybun muhramun ya sayidi wa xushaasu si mahsuwatun biha waqiyan wa ida sakkatu ففيك تمتي ينندي وإذا نطت فمدح وليقين وإذا سمعت فعنك قولا ينندي وإذا نظرت فما أرى إلا وإذا نظرت فما أرى إلا ك وإذا نظرت فما أرى إلا ذاك وذاك إليك مجيبة لذاك والماء هذا لراحتيك وصبحك جمل صار فضلي يمناك وعليك ذللت الغمامة في الوراء ينشي الممد والجف حن إلى كريم لقاك هذا ولا أثر لمشيك في الثراء والصحر قد غاثت به قدماك وشفيت السلعات من أمراضي وملأت كل الأرض من جدواك ورددت عين قتادة بعد العمى وابن الحسين شفيته بشفاك وكذا حبيب وابن أضرى بعدما جرحا شفيتهما بالأمس يداك يانا والي تركج من رمد به داويته في خيبر تشفي بطيب لماك وسألت ربك في ابن جابر بعدما أما تأحياه وقد أرضاك ومست الشاة لأم معبد بعدما نشفت فضرتني شفاها رقياك ودعوت عام الحق جيرا معلنا فانهل قطر صحبي حين دعاك وانا ودعوت كل الخلق فانقادوا الى دعواك فوان سامعين نداك سنيدا وقفت دين الكفر يا عالم الولا محمد الامين في منني néew na ku dee yóbbuwaale 40 kilos yiw ak 40 kilos tiyaabo néew na ñu doon góor a ko mën mu balance quarante kilos yiw quarante kilos tiyaaba nga yóbbaale ko góor ñi piir ko li xew daal deux cent cinquante tonnes ci bàkkaar ak cent kilo yiw waa kii ku ko bàyyi noonu musiba du ko dal bañ xaw a comme mu ngi en dépôt parce que ku dee dañ lay def dépôt mooy barsàq balaa ñu la assiégé ñëpp dee foofu nga fi tëdd nag la la say bokk di fàttaliku ci ñaan ak i sarax ngay sa poids di yokku bale di beese ba nga dabe balaa ñoo suuf la ñëpp a jóg fekk nga jekk léegi am ah, déet affaire bi nii la man bu ma dee ñi mu fekk ñuy dund te jegeñ ma bu kenn wax ne yem nga fi bu ngeen amee ay nag rey leen tout rey ginaar yi def nomlette def sombi def xam nga caaxaanuma de billaay dëgg lay wax gis nga jullit bu dee xam nga lu ci war fecc waaw fecc danger fecc bu baax dëpp kii ndax xiiwal gu rëy gu naqaree am te xiiwal cant ca war ki jara jooy daal mooy ki ñu taxañ suuli te musul a julil yàlla musul wax laa ilaha illallah kooku ne dina rëccu lu mu doon juddoo waaye laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jax jaxasoo jullit yi nga dee ci seen loxo ñu gunge la yóbbu ñëw kooku sant yàlla rek ca war ga sama rakk la baayam ak sama baay bokk baay baayam la sama baay jëkk am ci bi ma faf sama jarbaat may ko ko mu deele bërki démb maa jiitu ca tàgg ba bi ma agsee seen fi tuuti ma wàññeeku bi ma jaaree ci suba ak sama kooku may gunge maa ngi ko daan kër jar gàngale xamul lu ma dal waaye maa fa waroon jëkk waaye ba ngoon léegi bi may ñëw maag sama soxna ak ñi mu àndal maa ngi naan leen kër jar gàngale maa fa waroon a jëkk waaye bu subaa ma dem fa soo dëkkee si biir mbokk nag ndeele ñi la gën a jege gisula leen doo gudda tànk dangay toog sa kër ba gis ñépp yow waruloo woon a ñëw fii ma di la fekk fii doxal ñibbi <laughs> waaw tuuti ma ñibbi tuuti ma ne leen naka la ñibbi mbaa ma ñibbi ndax maay magam maay gorom te it kenn ndax léeg-léeg nga gis ku deele fàttey mbokkam di fab ñeneen di def ci tàgg bi ngir utu tuur te ñooñu duñ la ñaanal duñ fa teew ñàkk fayda rawul loolu complexe rawul loolu ñi lay wuy di la jàppale tudd leen bu yeboo sax ñàkk daraja nii bu saaxu waaye faf ku nganda nganda diw diw diw diw diw diw diw sax buñ ko ne doon nañu tudd ci tàgg bi mu ne kooku kan la kii kii du ñàkk fay yàlla defal na nu nag sutura yàlla na yokk ustaas kaa ngi maamam di waliyu kaamil bu kenn werante maam maas ko prix mi mosu cee jóg yàlla dogal na sax dañu fàtte sunu kaamil moo nu faf abal kaamilam ma bëggoon ñu jublu ci kaamil bi ab laay ak i way juram sunu yaay ju baax jii fi war a bërki démb ak sunuy way jur nun ak jullit yépp waa barsàq bu ñu dajee ci yërmande yàlla ñuy ñëw nag ci kaw suuf si ñaanal sunu bopp ñaanal réew mi yàlla dolli fi jàmm dolli fi sutura dëgg la nit ñaa ngi wax nawet bi nawet bi nawet bi waaye ma wax la benn baat siise réew mi ñi fi gën a neex dund ñoo fi gën a néew taw waaw àddina bi ñi gën a neex dund ñoo gën a néew taw kon dund bi nekkul ci taw bi jëf ñi doon jàng ñi doon sikkar ñi doon def salaatu ala nabi ñi nekkoon ci ismul jalil bi ñuy wax amin ñi doon wër nit ñi ak ñi fi joxe dara lépp day bokk di tiyaaba bu fekki abdallahi ca la mu jotoon a def ak lañ ko defal keroog seen mbokk di suñu xarit aadama ndaw jox na fi ñi doon jàng ñaari junni ñi doon wërit indi nañu lu am solo moo kaamil bi nag ak luñ fi def ba bërset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 wa radiyallahu an cheikh tijani wa kullu man taallaqa bi ashyaarihi wa li jamii aimati almuslimin bi rahmatika ya arhama arrahimin bismillahi arrahmani arrahim allahumma salli ala nabiyika almustafa wa rasulika almurtada wa waliyika almujtaba wa aminika ala wahyi alsama wa aini ala sunnati وأمتنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته وأعذرنا بزمرته واسقنا من عوده يا أرحم الرائمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب قراءتنا هذه لمن جعلته سببا لاجتماعنا هذا وآتيه بالقرآن في قبره الشاعة الواسعة والهجة البالغة والقول الرابطة ونور المستبين في اللعد المظلم وجاف العرض عن جنبيه وارحمه واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آتيه بالقرآن اللمن يوم فصل الأكبر والرقاء عند الشدة وتثقيل الميزان عند الخفة وتيسير الإنذاب يوم الأسرة والورود إلى الرحمة والمغفرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ما أتاك به من أسنة فتقبلها وما أتاك به من سيئة فتجاوز عنه بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه من كتابك الحديث هدية واصلة ورحمة متسلة منك إلى روح عبدك وابن عبدك عبد الله سعار وإلى جميع المسلمين والمسلمات اللهم فالأوصل ثواب سالك إليه واجعله نورا يسعى بين يديه اللهم اكرم به مقامه am na ñuy jàng allahuma ikrim bi maqamahu wa yasir bi idaabahu wa daif bi sawabahu